mbokk yi topp 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission jotaayu koor jotaayu koor nag ñu ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo di jànkati xasida yi jotaayu koor nag xam nga ne ni mu baaxoo day daal di dundal lépp loo xam ne koor la ñu ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo di jànkati xasida yi bi la yoon ñu daal di dalal ki nga xam ne moo di Serigne Dantal waaye xam ngeen ne jotaay bi duñ ci wéet saa su ne dañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di soxna su la bala ñoo dugg di dalal suñu gan dañu daal di dalal ki nga xam ne moo di soxna su nuyu nañ waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi suivre seen site internet bi di 24actu euh, tey nag euh, comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen rek saa su nekk ci seen émission jotaayu koor jotaayu koor comme ni ko soxna Mame Fatou waxee sànq rek dañ ci invité ñi nga xamante ne ñoo di euh, jàngkat yi ak euh, tàggkat yi Seydina Mouhamed rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak yëpp loo xamante ne day dundal diine yi di ak rawatina di dundal li ne moo di weeru koor bi xam nañ ne weeru koor yàggul mais faaw ñu jël la nga xamante ne mën nañ ne da koy dundal ñu dugg ci bu baax a baax a baax di nuyu bu baax euh, suñu invité bi nekk suñ Mouhamadan Tall nekk jàngkatu xasida bu mag bu ñëpp ràññee ñu taxaw taxawlu foofu ba ci kanam incha allah waaw jërëjëf soxna suñu daal di dalal ki nga xam seen nag mooy suñu gan sëñ daan ñoo ngi lay nuyu. Euh, soxna si ñoo ngi leen di siyaar bu baax di leen delloo bi di ñaanal bu baax Cheikh Mountakha Mbacké mu ñàgg mu yàgg fi lool te wér euh, ak mboolem njabootu sëñ Touba gépp ak Cheikh sëñ Cheikh Jëmb Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di nuyu mboolem personnel bi nga xam ne yéen a liggéey fii ci 24actu. Euh, euh, mm-hmm. euh, di leen ñaanal bu baax yàlla dafa leen tawféex. waaw jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf sëñ Mahamadan nuyoo bi jotale ne ñu daal di bëgg na xam ngeen ne jotaay bi comme que jotaayu xasida yi la ñu bëgg bala ñoo dugg ci waxtaan bi nga daal ñu koy ibbil yëkkati ñuy xasida. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يقيني إلى الجنات ما ليس يحمد رسول كريم بيتنا صار أحمد وخان العصا والموت والجهل سرمدا رسول سفي في برايا محمد محمد المختار لا خلق مثله li am daa ihi xarutu walawdu jammat hibaato basirun habibun wal asal xablu لقد جاني في البر سبق بالورى على كل مخلوق بالخلق تسند مدي رسول الله لي خادمت لبي ولي ليس ينو دهر واس مفند ودادي لربي سا سكور على النبي رسولا كريما مثله ليس يولد لقد مان من صلى المقفى محمدا يا جي وليدا قد مدى أو سيولد دعني لامتي سفيه محمدا amaani wa man lam yahwani fa huwa yutradu alimtu laddal abrari wal barri wal mala bi anna al muqaffa sayyidal khalqi mufradu isaama madatul niltu fayatan akunu biha busra liman dama yasjudu ah jërëjëf mm-hmm. am na solo sëñ ma dan ci njàng mu am solo moom tey ji ñu bëggoon a xam ci ñi nga xam ne xamuñu sëñ Mahmadan bu ñu bëggee xam kan mooy sëñ Mahmadan Tall lan nga ñu wax. sëñ Mahmadan Tall. Hmm. di taalibe sëriñ Touba di maanaam di jullit di murid di taalibe Serigne Touba. Hmm. waaw euh, euh, xamuñu lu dul sëriñ bi ñu ñu dëkk fii ci Touba Soura. waaw foofu loolu daal mooy première li ma la mën a wax a agun ci man. Mhm. jërëjëf ma Mahmadane waa léegi tamit buñ bëggoon a xam tamit kañ nga dugg ci njàng mi sëñ Mahmadane kañ la dugg ci njàng mi. waaw yàgg na ndax njàng mi mën naa ni 92. 93 93 93 94. fekk na ma nekk ci njàng mi. Mhm. waaw waaye jamono yooyu nag maa ngi ko booleeg di jàng métier. ah ko waaw métier tailleur. Mhm. boo maa ngi woon fii ci 28 defe naa ne 28 bi bari woon ñu ma fi xam ñu ma fi xam lool sëñ Modou Lo Ngabou rek doon na ci waaw ndax maa ngi woon foofu ci koñu kër sëñ Modou Lo Ngabou fii ñu def banque bi tey foofu la sama atelier newoon ci koñ bi noonu. jamono yooyu sama baay bu baax moomu daan moom ci moom laa nekkoon sama papa foofu laa doon jàngi métier. waaw loolu daal bi ma bi nga xamante ni nag avant may jàngi métier dem naa daara. waaw loo waaye loolu xëy na sax laajugoo ma ko waaye dama maanaam sama débuté laa lay wax rek nii dem naa daara bi ma ñëwee hmm. dama daal di jàng métier. waaye bi ma jógee ci daara jot mën naa dama ko daal di boole njàngum njàngum xasida mi hmm. waaw ñu bëgg xam tamit naka nga def ba dugg ci ak bëgg la ko waaw ak bëgg la nit lu muy dugg te te te koy da koy xool ba bëgg ko mu dugg ci. Hmm. te xasaayit moom dañ ko yàgg bëgg rawatina suñuy wayjur dañ ko daan def. man sama way jur ci xasaayit lañ ko xamoon na ànd ak bàyyi bàyyi bàyyi sëñ sëriñ wàdd ñun sëñ Mbàkke màddina ku nekk xam na ni moom jàngkat yi moo leen moom moo leen féetewoo waaw sama waajur ne woon ci kër sëñ Mbàkke Madina man tam ma jóge ma ma ma ma ma ma judd ci kër gi judd ci kër sëñ Mbàkke Madina moom mooy sama wasila mm-hmm. euh, di di di profitoo ñaaral sëñ Cheikh Bombaali moom sëñ Mbàkke Madina mu yàgg fi lool te ah, waaw mooy sama sëriñ. kon yow ñoo bokk sëriñ ndeysaan. waaw waaw. Mm-hmm. foofu daal lañ tàmbalee. dëgg yàlla. léegi tamit daan àndal. waaw sama ndoorte maa ngi njëkk ànd ak ku ñuy wax sëñ Xaadim Fall. Mm-hmm. Xaadim Fall eh, léegi da day kuréel. ci jamono boobu yàgg na bi may wax jamono yooyu sax defe naa ni jànkat yu bari kéeguñ jàngkat yu bari eh, eh, feeñaguñ mm-hmm. eh, booba jamono yooyu xaadim Fall mi ma daan àndal léeg-léeg suñ xaadim gi am ay jàng ma daan dem bokk ca mbooloo ma waaye booba nag nekk guma ko xam ne damaa ne dem dëggantaan di dem dëggantaan di dem ci moom mm-hmm. ñu dem di dem dem yàgg sëñ xaadim Fall moomu am na kuréel bu bu amoon fii ci ñaari étage bu ma saan jàng bu paree damay jox ma jàng. su ma jàngee ci lañ naan xale bii xale bi di commencé di ma ma dugal mujj gi bu ñëwee daanaka bu daf may jox may jàng gars yi aw Xaadim Fall moomu ku mel ne sëñ Xaadim Gueye ak sëñ Maara Seck xam nañ ko daan def jàng yu ñu am moom dañ koy dañ koy dañ koy jëli pour mu aw leen. ndax daa mënoon aw macha allah daan roy Ablaye Seck. ñoo koy ñaanal bu baax. yàlla yàggal ko fi tam wér lool. Euh, foofu daal laa njëkk jaar ci njàng ba ni ma demee ci sëñ Xaadim Géey da dem ah kon jot nga ànd ak sëñ Xaadim Géey waa sëñ Xaadim Géey ànd nañ lu lu lu yàgg sëñ Xaadim Kebe it ànd nañ lu yàgg waaw. waaw léegi sëñ njàng mi tamit bi nga ci diggee léegi ndax mas nga ci génne ay cassette. waaw waaw def naa ci ay kaset yoo xam ne euh, du du du pré-enregistré mhm. waaye def naa pré boo xam ne maam jaara la euh, soxna jaara mhm. boo xamante nii def naa ne defoon na euh, tarkal la amoon na kii ci dëkk bi. loolu xam naa maam jaara boobu dinañ ci dikkaat dañuy bàyyi soxna Asou mooy mu daal di dugg. waaw incha allah. waaw sëñ Mouhamadane ñu gis ne njàng mi bi nga koy door <clears throat> da nga kaa boole ak li nga xamante ne moo di métier mooy da ngaa dugg métier ba mu yàgg nga dugg di commencé jàng bi. Mhm. est-ce que moment boobu yomboon na ndax da nekkoon di def benn kuréelu xasida ba tax nga dem di roy kenn wala da ngaa uh, di boole bi ak dem di roy kenn. waaw waaw dama daan jamono yooya. Mhm. sëñ Ablaye Seck laa daan roy moom laa daan roy mm, ba yàgg yàlla dogal. ca la xam sëñ Xaadim Géey mm-hmm. ndax booba sëñ laa Seck defe naa ni bari na ci dëkk bi ñoo bari ñoom moom lañ daan roye mm-hmm. sëñ Xaadim Géey sax moom la daan roye mm-hmm. ba yàggam ci laa dégg sëñ Xaadim Géey nag commencé di ko roy yàlla mayoon ma ci lool nag macha allah bu ma ko masaan roy maa ngi fàttaliku bu yàgg euh, dama daan jàng ay nit daw fa sori ñëw defe ne suñ xayim ngi mooy jàng buñu accès dañ na dañuy dañuy jaaxle sax ndax ni ni ñu nuróo woon baat ba ma ëpp waaw dañu daan nuróole sax ci yu bare bari wax dëgg yàlla moom it ma bëggoon ko lool nag bëgg gi ma ko bëggoon tax na euh, su ma ko daan roy dama ko dama damay damay damay damay indil image am teg nga xam ne dama koy roy normal loolu daal moom bokk na ci ki nga xam ne moom laa njëkk di roy ci jàngkat. jërëjëf sëñ Mouhamad ci leeral yu am solo yooyu mais dañoo gis na njàng mi léegi euh, dafa toll moment bi nga xamante ne mën nañ ne nit ñi ciy dugg dafa bari trop. Hmm. te yow buñ seetloo année bi nga wax jàpp naa ne ñun ñi di wax ak yow xam naa moo ñu mag. Hmm, yow moom xam naa kon bokkoo ci génération boobu. Hmm. gis ne am na ñu bari ñoo xam ne njàng mi léegi dañ cee dugg. Euh, donte nag wóorul ba xam ak bëgg moo leen ci dugal wala pour wut mbooloo moo leen ci dugal yow loolu ban gis-gis nga ci am. waaw loo bëgg bëgg ko ngir yàlla. Mm. de mën na laa jariñ mm. xam nga ñun ñun bañ ciy dugg ñun dañ koo bëggoon ngir yàlla nga xam ne mm. sunu wajur bokkoon na ci lu ñu daan wax benn boo koy def nanga ko def te yàlla rek tax bul xool ku toog def naa ni man sax lii may wax bu ku seetaan image bi xam ni xam nañ ma man man ku toog ak ku dem laa yemale man bu may jàng. xaw nit ku toog xaw ma ku dem. mais jàppoo ne am na si ñoo xamante ne man nañoo gis ñu Mouhamad ka nekk ab kat mais tamit gis nañ ne bëri na mbooloo bëri na ay soppe tax ñu ne xaaral ma soobu jikka ndax ma mel ne si Mouhamad. waaw xam nga euh, loolu. nit ki bu fekkente ni da roy ci nit. na nga roy ci moom mm-hmm. li nga mën a roy ci moom te jëfandikoo sa sa sa sa xel waaw maanaam roy mm-hmm. bokk na ci kii nga xamante ni day roy mm-hmm. li muy roy mu bëgg ko xam nga damaa jàpp ne nit bu jegee di roy dara da koy bëgg moo tax mu di ko roy waaye daana dégg ñu naan roy dunduroog piir roy moom dunduroog piir waaye nag ki nga xam ne yow yow mi xam ne daay da ngay roy jànkat roy ko ci njàng mi waaye boo ko royee boo ko royee baat baat yi bokkuñu daal. waaw ku nekk sa sa sa baat ni mu ni mu bindoo. ak ni mu mel. Ah, waaw te boo ko roy nga roy ko ngir yàlla. te bañ roy ngir àdduna daal. Mm-hmm. ndax àdduna moom. lépp lu dugg rek day mujj du du mujj fenn. Mm-hmm. du doon dara. Mm-hmm. waaw boo koy roy nga roy ko ngir Sëñ Tuubaa mi nga xamante nii ndax nit it booy jàng xasida na teg sëñ jël jëm jëmmi sëñ bi teg ci kanamam. boo ko la def rek koo mën a roy dara maanaam da ngay da da ngay jàng da ngay da ngay jàng xasida rek waaye jàngoo ngir ni damay roy nit wala danga mhm. waaw waaw jërëjëf sëñ Mouhamad ci leeral yu am solo yooyu waaye léeg nga ñu nemmeeku benn jàngkat boo xamante ni kat euh, mën nañ ne benn koñ benn daayira dañoo am cant ñu invité ku mel ni sëñ Mouhamad ne ko yow kat yow lañ bëgg nga ja fanaaneel ñu baas bi jàngal ñu ci ci jour bi ñëw kat waxaale ak yow nañu temps nga ñuy fay bañ d'accord ci mais suñu Muhammad léeg-léeg day néglisé wala ay bu waa cant boobu te li moo xam day jaan ci cant jàng a sonn bu ñëwee ñooñu àq jëm leen war ko jox est-ce que yow loolu mm, mbaa def ñu la noonu waaw loolu de moom baaxul moom loolu de wax dëgg yàlla moom moom moom gënut man nit mosuma koo def mm. ku koy def it war lañ koy mën a jàppe mm-hmm. ndax ay nit it buñ buñ buñ buñ buñ buñ buñ dajaloo yëkkati seenu ñax dajaloo seen seen seeni dërëm ak seen ñaar dërëm. Mhm. ba mu daje. Mhm. atum yàlla ñuy teg. Mhm. ku nekk xamoo fu mu jëlee la mu la mu la mu am li mu indi. teg ci daayira te xaalisu daayira ni mu doy waar. ak xaalisu mbooloo. ñu jël ko dajale ko nit daañu kat sàngam lañ lañ tàmm mu jàngal ñu. ñu ñëw dajale seen xaalis jox la. nga war a ñëw dem woor leen. Mm-hmm. man de bu man de du ko def. Mm-hmm. te bu ma bokkoon ca mbooloo ku ko def. Mm-hmm. dinaa la fekk sa kër nangu sama xaalis wala mu ñu mu demee ndax ndax nag su fekkente ne fay am na ci rek liggéey la léegi. dañu waxante dëgg. su fay fayu moom fayeeku su duggee rek liggéey la léegi comme comme bu fekkente ne nit ki liggéeyam la tamit nit ki danaa dégg suñu wax ni eh, nit ki li muy dugg lim mu dugg tam tam tam ñor ko na ko fullaal. na ko fulaal fulaal gi nag jiituwu ci dara jiituwu ci respecté say kàddu ndax nit ki amul lu dul kàddoom soo joxee nit ki sa kàddu ni ko kat bi sàngam kat dañoo bëgg dañoo bëgg nga jàngal ñu ngeen mu la waaw ngeen ni waaw mu ni waaw pour man dangaa war dem jàngal leen bu heure bu jotee mm-hmm. waaw man de noonu laa doxee wax dëgg yàlla jërëjëf xam naa ñu jox Soxna Mame Faty waaw sëñ Mouhamadou ñu daal di dikk ci ni ngeen di jànge xasida ndax dañoo gis yéen jàngkati xasida yi da ngeen ciy boole lu mel ne ay wolofal ndax sëñ Mouhamadou dina jàng ci wolofal yooyu wala waaw wolofal dama koy jàng bu baax ndax mën da ñàkk mhm. wolofal dafa bokk ci ci ci ci yoon wi mhm. euh, wolofal sëñ Moussa mhm. nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ku nekk xam ne moom moo wax sëñ bi Eh, moom bañ na ko ba defoon na ci ay wolof yoo xamante nii ku nekk daana ko dégg mu ni bu ngeen bu daana wax ni bu ngeen dégloo tey jii malaa biire gaa yu baax yi naan ay wolof baaxul mm-hmm. te rëy day sewal ku baax mm-hmm. booba sëñ Moussa mel na ni daa am ku mu doon tontu ndax ku ñëwoon di ko tuutal mu di ko tontu daal di daal sëñ Moussa boo ko masaan wax dara rek fi saa si day daal di way tontu la mm-hmm. mu daal di way loolee di ca di ca léebu kookee damay du ma tudd tur waaye daal am na ku doon léeb ni ko bu ngeen dégloo tey jii malaa biire gaa yu baax yi naan ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baax daani ku rëy bay ndamoo néegum ndayam mbaa baayam bu baax nu sew nun tey damoo Seex Bàmba ngir moo fi xotti baax. Mm-hmm. loolu kon wala fal yi. la waaw. loolu leer na waaw ñu daal di dikkaat ci mm-hmm. tamit bis yi nga xam ne yéen a ngi koy taxawal yéen jànkat yi ndax sëñ Mouhamadane bokk na ci eh, bis yu mag yooyu jànkat yi taxaw. taxaw waaw def bis bu mag. Mm-hmm. bis bu wax dëgg yàlla ni ko jànkat yëpp yi defee tey it man rek maa sañ a taxaw fii ni benn jànkat njëkk maa def def bis ci Touba. léegi laaj bi ñu bàyyiwaat soxna Soum de Sall. am na waaw euh, sëñ Mouhamadane est-ce que euh, mën nañ ne tournée yi nga xam xamante ni jàngkat yi léeg-léeg dañ koy faral di def est-ce que yow bokk nga ci ñi nga xamante ni yaa ngi koy def. waaw waaw ñi ngi sant bu baax ñi ngi ñi ngi ñi ngi jàngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jàngi li nga li xamante ni suñu borom mi ñu ci yemale ñu ngi ciy sant yàlla bu baax amaa nag tournée euh, moom tournée tournée moom daanaka nit nga toujours ci tournée nga dëkk ndax. Mm-hmm. boo boo dee xool mm-hmm. euh, yaa ngi ci ay jàng. barki dem balaa jógee yu xaw a sori yi wala ndax Touba rek la yem. waaw waaw maa ngi maa ngi génn maa ngi dem fii maa ngi génn di tur jàng jàng yu sori sax. Mm-hmm. yàlla wax dëgg yàlla waaw. waaw ñu seetlu ne yow mm-hmm. njàng mi mën nañ ne yàgg nga ci ndax am nga loolu ñuy tuddee daayira soppe ñoo xamante ni que mën nañ ne soppe si Mahmadane Tall la. waaw am na. Mm-hmm. am na defe naa ni soxna si am na ci dara fee ndax ndax euh, fee ca koñ ba. macha allah wax dëgg yàlla euh, ay jàmbaar yoo xamante nii euh, xasida Sëriñ Tuubaa yi rek lañ bëgg te bañ ko dalee taxawal yàgg na at la. Mm-hmm. te booba tey ñu ngi ciy dox di góor góorgóorlu. bu bis bi ñëwee ni ma la ko waxee dégg nga mel la bu bis bi ñëwee ñoom ñooy jàpp ca bis ba. Mm-hmm. ñoom ñoo ci ñoo ciy taxawal di ñoo di dajale di natt seenu xaalis di ko dajale di ko def ci bis ba. Mm-hmm. nga xam ne xaalis boobu dajale wuñ ko ngir jox ko Mouhamadou mu def ko ci poosam. dañ koy dajale ba pare buñ ko indee. nga jël xaalis bi joxaat leen ko. ñu financé ko ci bis bi noonu lay demee. jërëjëf si leeral yu am solo yooyu xanaa wolofal yi nga xamante ne maa nga ne yaa ngi ci yëngatu rek nga am luñ ci jot a jukki rek. Mm-hmm. auzu billaahi a shaytaani rajiim. wa sallallaahu taala ala wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jaajëfate xaadim rasulillahi dina jaangi lay dëgge islaamu lay góor ga dama mojli laan baraamam fil baari laay soppe baraamam borom bayti laaye borom bayti laay ahmadu maam jaara jaaratu góor ga demaloon géej rasuulillaahi fil baari soppe boroomam boroom bayti laay ahmadu maam jaara jaaratulaay jaajëfati góor ga demaloon ngeey rasuulillaahi moo julli loor baraamam fil baari laayi yàlla ak yoneen gërëm na la ma alu laayi alxuraan gërëm na la kitaabu laayi xaliilun wa kenn waxul lu gën a wér muridullaay xalilun habibun awliyaawlaay kenn waxul lu gën a wér tuuba sëriñ tuuba ku sopp si amadul xadim sëriñ tuuba sëriñ tuuba ña koy bége ñooy dëkkee jinaanu laay koy safa jàkkaarloog jinaanu laay sëriñ Tuuba ña koy safa ñooy koy safa jàkkaarloog jamaalu laay ay sëriñ Tuuba Mustafa di sa docteur tabibu ab tubaab mas la faaj xabibullaay macha allah sëñ Mouhamad olofali moom am na solo macha allah moom yaakaar naa xol yëpp moom tooy na xanaa ñu jox soxna maam Faati Deme bu gën a yaatal. Ah, macha allah ci xasida yi am na solo wolofal bi am na solo lool waaye sëñ sëñ Mouhamad dañ bu mu bëggee dellusiwaat ci ni ngeen di jàngee ndax gis nañ ne yéen jàngkat yi bu ngeen di jàng ci baas bi fëlxoo yi ak daanu yi dina bari lool ndax est-ce que jëli poos yi tamit yéen ñu ko mën a wax ndax yéen a ngi dara dajeeg moom wala. jëli ndax booy jàng daal tuwaarkaal da gis koo xam ne maanaam sax da lay xaw a da lay attaqué daal moom fi ne man jàng naa ci tànt am koo xam ne wax dëgg yàlla bi mu daanoo ba fi may wax ak yow nii wax dëgg yàlla maa ngi koy wër ndax dóoroo daal du yàlla taxut xam nga am na jël yoo xam ne yàlla day tax am na jël yoo xam ne nag moom yàlla mhm. nga engagé bi jàngkat ni ko tepp ab épirkil la xam ni ñu ko joxe yooyu daa metti loolu loolu daal war nañ koy programmer wala daal ñu jël ci pexe tax dëgg yàlla di jàngit ñu lay dóor it metti na. Hmm. gars yi la la nga dégg ñu ne daa daanu te daanu daanu di doore moom man gisuma ko ci morit gi boo daanoo daal da ngay ñoqi joxe. Uh-huh. wala nga daw mbëkk miir bi. <laughs> miir bi moom du daano boo daanu miir bi du daanu léegi daal loolu loolu daal moom mooy problème bi waaw noo <laughs> ngi jégalu bu <laughs> <laughs> waaw suñu waxoon ci wax dëgg ci jërëjëf ci gi waaye jëlu poos la ñuy def comme jëlu poos mooy li nit ñuy joxe kon daal xel-xel daal moo gën a bari maanaa ci maanaam la ñuy tiit di joxe euh, waaw da ngay jàng léeg da ngay jàng am ko daanu am ko daanu sa ñëw baatare baatare da koy gis mhm. ñëw ñuqi poosam génnee ay dix mille di la baatare di la mhm. baatare mhm. dimanche passé def naa ko Ndakaaru dimanche passé maa ngi doon jàng am conférence Dakar Euh, sama rakk defe naa incha bu bu ko envoyé lii dana ko seetaan mi ngi may dégg. Mhm. wax dëgg yàlla macha allah. ngay mhm. jàng ñu di la baatare. Mhm. nga jàng ñu jox la xaalis ba pare yewi la jox la enveloppe. te loolu man moom laa xam ci ci ci daanu. Mhm. waaye daanuy dóore daal. Mhm. ab dafa koy def. Ah, waaw jërëjëf jot na fekk ñu wut ci ay matuwaay man xam naa bu ngeen amee école a jàngale karaté daal sëñ ah, daal di dikkaat ci li nga xam ne wax nga ko nekk ànd nga ko Serigne Khadim Gueye ñu bëgg xam ci ànd bi ci ñaata at la tool waaw sëñ Khadim Gueye ah, daanaka man xam naa ni mënuma koo tàkk dëggantaan ndax dem gi. Mhm. dafa dafa dafa dafa fixé wul woon lool. Mhm. daanaa dem lu mat ay ay fan. Mhm. tourné ci àll bi ay fan. yenn saa yi mu ñëw xam nga rek boo nekkee di jàng di liggéey nekk ak sa baay. Mhm. ngay muy liggéey ak moom bu gudd liggéey bi tardé. yenn saa ma dem jàng ñëw. mu ni ma tay doo mën a dem wa ilaa maanaam ñu yor ay liggéey war a liggéey yooyu tamit da da ciy daan joué moo tax waaye nag xam naa li ñu ànd moom jege na fukki at moom mm-hmm. jege na wax dëgg yàlla ndax euh, rawatina sëñ Xarim Kebe moom it xam nga dañoo bokk sëriñ sëñ Mbàkke Madina uh-huh. bi ñu daan gisee ci xay ci sëñ Xarim gi moom ñoo daan bokk di répété moom sëñ Xarim Kebe mm-hmm. ci buntu këram jamono yooyu it ñu bokk sëriñ ñuy ànd ak moom moom it. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaare bu baax a baax. moom ak sëñ Xaadim Géey mi nga xam ne mooy suñu jëriñ moom di jëriñ yam suñu jëriñ waaw mm-hmm. jërëjëf ñu daal di dikkaat ci ni nga xam ne yéen jàngkat yi noonu ngeen ban relation moom nga am ak jàngkat yi. waaw euh, jàmm rek. Mm-hmm. jàmm rek lañu am jàngkat yëpp samay xarit lañ fi ne nii may def ñii nga xam ne fu ma toog ñu ree noonu laa mel ak ñoom fii ne mm, fu ma bu ma bu ma bala ngaa xam li ma la wax. Mm-hmm. ay jàng jàng am mbooloo ñoom ñëpp ñu toog su may egsee rek day mel ni man lañ doon xaar mooy ñëwee rek ñu commencé di reetaan bu du ma wax sax damay ñëw rek toog ñuy ree mm-hmm. xëy na yàllaa koy def mm-hmm. yàlla moo koy def waaw ah, man man jàmm laa bëgg dama bëgg ñi nit di ree di am jàmm di waaw su ma seen kenn du am stress mm-hmm. sëñ Tuubaa la moo neex waaw xam naa sëñ Mouhamed waxtu bi moom mi ngi dab mais ñu jàllale ñaari question rek benn bi mooy euh, bi ngay maanaam ber sa njàngum bopp euh, metti woon na wala mettiwul woon ak nga ko dundee woon waaw metti woon na ndax euh, jàngkat buy door. Mhm. te bëgg ñu xam ko ndeysaan nga xam ne ay jamono sax danga daan dem ci kuréel bi. nga xam ne ñu bari sax duñ la xam. waaw duñ la xam xaalim gi sax daaw la xam loolu law la min la la nga ñëw sax ndeysaan di yundulu di di bëgg di la ngay aw yundulu di dugg ngir bëgg ñu gis la. Mhm. di def yooyu yëpp ndeysaan ni ngay dem ba njàgg ñu di la ràññee. Mhm. dem ba yàgg ñu di la xam. ngay jàng ñu di ko dégg. loolu sant yàlla la yokkute la. ngay dem ba mu gi ngay jàng nag di am sa kuréelu bopp booy àndal foo seen soxlaa ñu jóg di ànd ak ñoom loolu taw tawféex la. Mm, ñu bëgg a xam tamit yan projet nga dëgmal ci wàllu njàng fi ne nii. waaw mm, euh, yi ma dëgmal daal mooy su ma sañoon. Mm. dina dinaa taxawal ci xasaayit loo xamante ni ñëpp dañ koy gis ndax jàng dañoo wax ne jàng yor micro moo ci gën a tuuti. yor micro di jàng moo gën a tuuti ci am njàng. njàng dafa bari ay mbir. jàngkatu xasida war naa am ay qualité yu yu bari yu bari noo mel xam nga kaf ak ree taxul nga ñàkk fayda. Mm-hmm. Euh, personnalité euh, jotewul ak dara loolu. Mm-hmm. nit ki man ngaa man ngaa mën ngaa am sa personnalité am sa dignité am loo nar am loo bëgg nit day am lu mu bëgg. Mm-hmm. nga xam ne danga am loo visé nar caa nekk nar koo def. ni lii laa bëgg doon. bëgg ngaa doon jàngkatu xasida moom laa doon waaye nag bëgguma cee yam bëgg naa doon koo xam ne damay nekk exemplaire di wane di wane yoo xamante ni ku ma gis mën a roy ci man jikko yu rafet. Mhm. bokk na ci waaw ndax ndax euh, boo dee xool makaarimal axlaaq ci jànkatu xasida sax la gën a jekk. Mhm. jikko yu rafet nga war a yor ndax xasida ñun ñoo war valeur bi ñoo yor valeur bi gën a riis. macha mooy mooy xasida sëñ Tuubaa yi. Mhm. xasida sëñ Tuubaa karaamati xattu yeddi la wax. sama sama sama karaam mooy sama mbindam lox. waaw xasidati faaxat xasaayidal kiram yooyu yëpp ba mu koy wax eh, lii taxoon mu di ko wax. Mm-hmm. bam naan antal karim anal xadim mu dëran uddi mu fii ka sanaa yi. Mm-hmm. jànkat yee taxoon boo dee xool ndax mm-hmm. tagg gi may tagg rasulillahi day wéy diirub jamono kon ñii ñu koy jàngi kon moo koy wéyale ba tey ndax bu doon xaside yi dafay nekk ni ñu teg ko bibliothèque rek xaside yi dafay nekk waaye tàgg gi mooy ñu di ko yëkkati. di di di wane mbindum sëriñ bi di ko di ko wax ñu di ko déglu ci yeneen réew feneen mhm. ndax Sëriñ Tuubaa xasidaam yi ñu baree bari gën nañoo xam kan mooy Sëriñ Mouhamad kon tey moom mën nañ ne kontaan nañ trop suñu gën a tey nekkoon Sëriñ Mouhamadan Tall di yëngatu tamit ci wàllu xasida mhm. ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di sant soxna Fatou Kébé bi nga xamante ni moom plateau bi mhm. di sant Cheikhouna Ndiaye Moussa ak sëñ bi Jaxate laqatu ak El Hadj Ousseynou Ndiaye Khady Ndiaye bi nga xamante ni moo jàpp ci montage bi ba yëpp yem macha allah ñu ngi leen sant baat di leen gërëm di leen jox dig daje ci beneen émission jotaayu koor jërëjëf soxna Asu ñu daal di bàyyi ah, eh, ngi jégalu ak ak soxna soxna Asu xam naa maa ngi maa ngi jégalu bu baax gee metti mm-hmm. ak sama xarit bi sëñ sëñ Ousseynou sëñ ku baax la wax dëgg yàlla euh, ba yàgg rek daje nañ fi 28 mu naan ma bëgg naa nga ñëw ci ànd ak awkat yi jàng bu baax. waaw loolu nag ndeysaan ku la yéene rek moo koy def. Mhm. yàlla na liggéey bi yokk. man gis naa ni yéen bu ngeen doxee. Mhm. da ngeen bokk ci ay ñu ñuy dégg ay journaliste. ñu ñuy mhm. dégg ci kaw ci yéen ndax jombu leen. barke sëñ Tuubaa ñoo ngi koy ñaan ci barke xasaay ci barke weeru koor wi. yàlla na ngeen bokk ci ñi ñuy gën a dégg ci yeneen télé yu mag yi. ci barke Xaddim maa ngi nuyu bu baax mbooleem ñi ñi nga xam te ñi ngi bi dañ na ko ñëpp di teewlu ndax site la boo xam ne ah wax dëgg yàlla sunu site la ñun yi te jàngkat yi moom lu ñu bokk rek day dem kanam day jëm kanam ñoo ngi leen di booleeg Sëñ Tuubaa mu jàpp jàll leen ba fu ngeen bëggee ak ngeen egg fa di siyaar sunu jinne yi caméra yi nga xam ne moom wax dëgg yàlla jàmbaar lañ gis naa ne dañu filmer lu rafet macha allah yéen daal kenn du yéen bu rafetee rek yéen a macha allah jërë ngeen jëf yàlla na yàlla dolli xéewal di siyaar sunu xarit sëñ Moussa Mbacke imam ba ma fay jógee mi ngi leen mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ñaanal soxna Awa Ndiaye xam na ko bu baax ñoo bokkoon classe mi ngi leen di nuyu ci moom laa jógee mu ñaanal ma ma doog a ñëw moom maam sëñ maam moom sëñ Murtala jërë ngeen jëf sëñ Cheikh Bombaline Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér jërëjëf jërëjëf sëñ Mahmadane Tall xam naa jataay bi liñ la fi woowee rëccuwuñ ko woon benn yoon ndax gis nañ xas day am solo yi nga xam ne jot nga ko fee yëkkati ak yombal bi nga yombal xam ne moo di invitation bi la ko wax mu daal di koy jàpp nil xam ne fii këram la mu daal di jàpp nil loolu lépp loolu tamit ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm di wax ne émission bi xam ngeen ne nii rek lay demee ndax jotaayu lépp loo xam ne dafay daal di dundal uh, koor te li nga xam si ne moo di xas day sëñ tuwaay da cee bokk ci liy dundal koor moo tax ñu daal di koy fasciné ànd ak ni xam si ne moo di jotaay bi ñu daal di àndoon ak ki nga xam si ne moo di soxna Astou Sylla ak suñ cameraman yi ngay Serigne Cheikhouna ak ki nga xam ne moo di Jaxate eh, sëñ bi Jaxate ak sëñ Moussa Ka ñoo nekkoon ci li nga xam ne moo di caméra bi réalisateur bi di soxna Khady Niang moo ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant tamit ki nga xam ne moo di Serigne Ousseynou suñ càmmiñ loon la nga xam si ne bàyyiwuñu benn yoon seetaanuñu ñu koy sant bu baax di ko gërëm di leen jox dig daje ci beneen jotaay koor jërë ngeen jëf